Ligue démocratique euh, Dibkor mu ngi koy wax léegi que ni yéen tamit ñàkkul ni yéen a ngi waajal euh, investir Amadou Ba. oui euh, xaw ma fan la jëlee information mais il a raison parce que ñun waa Ligue démocratique et je crois que d'ailleurs mu ngi am primeur bi parce que benn journaliste amagul information bi le 23 décembre bi incha allah samedi prochain LD dina def congrès d'investiture Amadou Ba. au théâtre national dernier dernier soir à peu de 15 heures joxe nañ avance commencé nañ di mobiliser suñ militants yi demain am nañ réunion permanence nationale toute la journée pour préparer congrès boobu donc il a raison te dire que LD mu ngi préparer investiture am dina ko def incha allah samedi 23 décembre théâtre national dernier soir parce que ñun euh, dañu am cohérence ci lu ñu def au passage maa ngi félicité PS. félicité AFP ci seen congrès d'investiture gis na booy politik cohérence daf ci am solo ñun ñu ngi Benno Bokk Yaakaar depuis 2012 te li inde Benno Bokk Yaakaar ñëpp xam nañ ko ñun au premier tour de la présidentielle de 2012 ñun waa LD Moustapha Niass moo nekkoon suñu candidat ñeneen soutenir Benno Siggil ak Tanor Tanor nekk candidat mais ñëpp dañu d'accord ne bu ñu paree de premier tour ñëpp soutenir le candidat de l'opposition bu di jël premier loolu moo indi benn Bokk Yaakaar depuis nag ñu ngi ci ñu ngi ci parce que dañu xool suñu sensibilité ñun sensibilité de gauche xam ne Macky Sall lu muy doxal ci réew mi gis nañ ci suñu bopp en tant que sensibilité de gauche bu ñu amee jot dinañ ci ñëwaat mais boo xoolee lu ñu wax équité territoriale équité sociale loolu c'est pas une vue de l'esprit lu am la équité territoriale équité sociale lu am Sénégal la depuis 2012 te loolu axe fondamental pour waa gauche la donc moo tax ñun amuñ benn problème pour des ci Benno Bokk Yaakaar tant que politique yooyu ñuy continuer ensuite euh, Ligue démocratique le 13 août lañ def suñu bureau politique Macky Sall 3 juillet la def déclaration ne du nekk candidat le 9 juillet conférence des leaders de Benno def réunion di commencer di xalaat pour am candidat le 13 août Ligue démocratique def bureau politique ci ñun mooy kuréel boo xam ne mooy jël décision ñu jël décision le 13 août ne LD candidat Benno Bokk Yaakaar day soutenir booba kenn xamagul loon ne euh, Amadou Ba lay doon mais jëloon nañ décision bu ñu jëlee décision bi le 13 août le 16 septembre fekk nañu ñu choisir Amadou Ba le 16 septembre ñu oote réunion Dakar suñu secrétariat permanent ak secrétaire généraux 46 fédération départementale ñoom ñëpp ñëw Dakar ñu waxtaan décidé ne Amadou Ba mooy candidat Ligue démocratique depuis ñu ngi ci tànk boobu mais ma préciser benn affaire le 9 juillet bi conférence des leaders defee réunion ñu bari ne jox nañ Macky Sall carte blanche pour mu choisir ñun suñu partie de gauche yi bokk confédération pour la démocratie et le social CDS ñun dañu waxoon Macky Sall nous on ne donne pas de carte blanche mais on veut être consulté sur le choix du candidat Macky Sall ne dégg naa CDS li ngeen wax moo tax le 18 août Macky Sall accordé une audience à la CDS avant muy choisir Amadou Ba maa ngi ñun ci audience boobu mu accordé une audience à la CDS CDS ne ko ñun amuñu tour mais lii mooy suñ profil candidat on a dressé le profil ne ko suñ candidat daal bëgg na mu mel nii mel nii mel nii Macky Sall ne je prends bonne note bu ñu choisir Ba ñu considérer ne Amadou Ba son profil répond au profit de la CDS moo tax ñun Ligue démocratique les partis de la CDS nous soutenons la candidature de Amadou Ba et je le répète la Ligue démocratique va faire son congrès d'investiture pour son candidat Amadou parce que politique dafa am cohérence gis nga doyen Albert wax na ko léegi am na benn journal bu titre ne investissement sur Amadou Ba xam nga Birame man dama am habitude di wax lii boo nekkee ci politique nga soutenir benn candidat mu gagné loo ci am danga ko mérité je prends l'exemple bu ñuy soutenir Macky Sall en 2012 gagné. gouverner avec Macky Sall parti peut-être pas tous les partis mais am ay parti am nañ ci ay ministres ñi ay député ñi ay directeur yéen amoon ngeen ministre ñun amoon nañ ministre benn ministre après ngeen ñàkk ko mooy mais am nañ député oui amoon nañ ministre am nañ député benn député am nañ PCA benn député muy ki jiite parti bi oui am nañ PCA am nañ PCA te gis nga loo ci am lu mu tuuti tuuti ça mérite la donc bu ñu investir Amadou Ba mu gagné ñi investir Amadou Ba peut-être que tous les partis ne peuvent pas se retrouver au gouvernement mais ku ci am dara sa mérite la parce que APR parti boobu L7 APR en tant que parti mënoo bi APR ba Amadou Ba gagné donc bu ñu àndee nekk ci Benno Bokk Yaakaar gagné même bu ñu ko waxee ne bu ñu waxee ne investissement la pour man ce n'est pas gênant on investit notre espoir sur le candidat Amadou Ba bu gagné on gouverne ensemble parce que c'est ça le crédo c'est ça évidemment euh, l'entente on gagne ensemble on gouverne ensemble. lutter ensemble lutter ensemble gagner ensemble. et gouverner ensemble. ensemble et quoi qu'on dise 2012 ba léegi Macky Sall a tenté de gouverner ensemble avec ses alliés parce que yéen ay observateur ngeen li am ci coalition Benno Bokk Yaakaar 2012 ba léegi mosul am Sénégal du point de vue de la longévité. aucune coalition politique n'a autant duré que Benno Bokk Yaakaar man maa ngi ci politique depuis des années 80 mais que ça soit dans l'opposition ou au pouvoir une coalition qui a tant duré musul am Sénégal loolu c'est du fait de Macky Sall c'est du fait également du des des leaders qui sont dans dans Benno Bokk Yaakaar te je termine par là wax naa politique war na am cohérence mais war également objectivité boo xoolee Sénégal actuellement nii benn parti mënul dem élection gañ Depuis 2012, aucun parti du pouvoir ou de l'opposition n'est allé seul aux élections. amul benn parti boo xam ne ci biir pouvoir bi wala ci opposition 2012 ba léegi dem nga élection seul. d'accord ñëpp ils vont en coalition. parce que les partis ont fait une analyse objective de la situation gis nga en 2007 ñun waa Ligue démocratique dañu investir Abdoulaye Bathily mu nekk suñu candidat en 2007. Mm-hmm. on a fait le tour du pays. on a eu un résultat mais le résultat était tellement décevant que ñu def pause ñu def une réunion au niveau de la Ligue démocratique ñu ne on va mettre en place un comité scientifique pour analyser la situation comité scientifique boobu man maa nekkoon seen président hmm. il y avait des cadres dans ce comité scientifique on a fait des enquêtes d'opinion on a fait des focus group on est allé à l'intérieur du pays pour xam la perception que les mais bu ñu demee élection il ne vote pas pour nous mais bu ñu jëlee résultat yooyu on s'est dit que LD en tant que parti mënul gagner élection ñu def congrès 2008 c'était le sixième congrès en 2008 ñu ne il faut faudrait que ñu dox ba am ce qu'on appelle le grand parti de rassemblement boo amee habitude de suivre discours LD depuis 2008 au sixième congrès il y a ce qu'on appelle le grand parti de rassemblement pour ñun les partis la entités yi isolées dañu def seen temps on doit aller vers de grands rassemblements ñi mun a d'accord bokk idéologie wala bokk idéo bokk référence bu ñu munee ànd ànd créer un grand parti de rassemblement mun na commencer par une confédération loolu am nañ ko ci parti de gauche la confédération pour la démocratie et le socialisme bu Pape Demba Sy di jiite existe depuis 2015 te aujourd'hui am na neuf partis au début c'était six partis mais depuis février AJS de Bassirou Sall dugg na ci ñàkk jëriñu de CSA dugg na ci euh, le le le le mouvement des révolutionnaires de gauche de Mamadou Wagué dugg na ci donc la CDS s'est élargie aujourd'hui on est à neuf partis et la CDS existe depuis il s'y ajoute. Uh -huh. ce qu'on appelle la gauche plurielle. Uh-huh. depuis le 5 et 6 août tous les partis de la gauche plurielle PS AFP ak d'autres 36 partis et mouvements def nañ assise le 5 et le 6 août ñoom ñëpp d'accord nañ ne il faut une confédération des partis de gauche. donc loolu boo ko amee parallèlement à Benno Bokk Yaakaar moo tax quand tu m'as envoyé le thème hier ne Benno Bokk Yaakaar bouée de sauvetage pour les partis de gauche ma ne en tant que affirmation mënuma ci d'accord maintenant boo ko defee point d'interrogation ñu wax ci parce que ça ne peut pas être une affirmation autant les partis de gauche sont embarqués dans la barque Benno Bokk Yaakaar autant l'APR est embarquée dans la barque Benno Bokk Yaakaar parce que APR bu génnee Benno Bokk Yaakaar mënul gagner élection pour ñu gagner il faudrait que ñun waa gauche ak APR ñu bokk Benno Bokk Yaakaar dem gagner et on fait comme 2012 on gouverne ensemble. d'accord d'accord ça euh, Pape